deuxième yi laa àndal. Mhm. troisième yi ak quatrième yi. yow xam nga daaw defoon nga ko fi ñuy concert ca foire ba. waaw nga commencé salaamaaleykum jàpp deuxième yeeg troisième yeeg quatrième mel na yow. da nga am cinq <laughs> wala six ex arrêté ah oui est-ce que xam wax je t'aime bu ñu bu mën a wax je t'aime seen jëkkër duñ takk ñaareel. nuñ koy waxee. Eh, mais dama lay waxal nag sama ci dama ne la ah bu ñu mënoon wax je bu dëgër. waaw duñ seen jëkkër du takk ñaareel. may waay man mais man <laughs> yaa ngi wax je t'aime mais dama lay waxal dara est-ce que yaa ngi wax je t'aime ah, koy wax kon sa jëkkër kon bu ragal dara kon sa jëkkër takk deuxième lépp a ngi ci je ah mais je dafa yomb mais am na yu ko gën a neex quand même arrête waaw ah, yooyu yeneen la rek mais nañ jàpp ne daal aaw bu ci dul wax je bu dëgg waaw lu tax li ma gën a jaaxal mooy gars yi bu ñuy def di di di wax aawa yeeg ñaareel ñoom laay jël demaguma ci troisième ak quatrième li ngeen koy bëgg ku ko waxtaane ah. bu ñuy xool da ngay ah. gis ne dañuy ah, jël aawo waaw defal ko sër defal ko grand bubu defal ko kii jël ñaareel defal ko tubéy waaw defal ko budi te pourtant <laughs> aawo yaa ngi sol budi di sol di sol <laughs> mais du feeñ man amaam du feeñ du safee parce que aawo yi ba pare nag waaw bi ma ci gën a woon nga gis ni xale bi di yëngal digg bu ñëw ni ni ndeysaan di nga ni nii affaire ba demoon parce que deuxième yi dañuy osé xam nañ ne xale bu góor bi dafay bëgg ay je t'aime mais jàppal ne ñaareel yi am nañu aawa yi am nañu dañu soxla loolu waaw am na ñoo xamante ne chaque année waaw chaque année waaw déglul bu baax téléspectateurs yaa ngi seetaan am na góor ñoo xamante ne chaque année ñu takkaat seen jabar jëndaat robb de marié organiser waat fête ba tey def lépp joxaat le premier cadeau ndax kontaan ci yow tey la fii tey tey la fii tey donc deuxième dame yi troisième dame yi quatrième yi ana sama góor ñi ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan bu la neexee nga déclaré bu la neexee man maa lay déclaré maa ngi lay xaar. rendez-vous Saint-Valentin tey la ñu koy démarrer alors on vous attend tous numéro de téléphone ce sera juste après euh, vidéo bi nga xamante ne moom la ñuy tagal wax leen ñu on va s'amuser et puis surtout qu'on donne la possibilité. Mm-hmm. deuxième famille troisième yi quatrième yeeg et cetera yi mën a wax seen ay jëkkër <laughs> ouvertement je t'aime daal mais xam nga ñoo ci boolewul. parce que ñoo ñu doon je t'aime seen nga ne deuxième bi duñu mën a wax ouvertement seen jëkkër je t'aime. on n'est pas là juste pour les mariés hein on est là pour ñi nga xamante ni dañuy labat ak dañ leen di labat aussi. c'est vrai. c'est vrai donc on est. njaxaanaay la ñuy tëddee. am na ñoo xamante ni aawa lañu ñaareel ba ñetteel comme ni mu koy waxee ba ñeent. ndeysaan aawa la am na ñoo xamante moo tax muy muy kaas nii man deuxième laa wax ak troisième ak quatrième <laughs> man sama yoon newu ci première am na ñoo xamante ni ay góor lañu. Ah. xalaatuñu jël ñaar ñett ba ñeent. am na ñoo xamante ni ña nga ca bay waaj a jël juróom. ak ki nga xamante ni day waaja a dugg ci néegu sëy ak kii waaj a jël soxna. d'accord ñun ñoom ñëpp lañ fi nekkal. léegi on va voir maintenant le ci ñi ñu lim ñëpp kan moo ci dàq wax lu lu lu lu neex sa jëkkër. Mhm. en cette période de pandémie voilà ñu leen di gunge ci télévision Futur Média yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan confinement bi métti na à l'étranger jamono ji Sénégal ñëpp ngi toog seen kër mais bés ni ki tey bu kenn teel a nelaw. zéro heure fu mu jotee jàkkaarloo ak télévision Futur Média ñun ñoo fi nekk man ak Exaidex pour vous accompagner en cette période bi nga xamante ne yàlla euh, mi ngi ñuy andil euh, feebar bi. feebar waaw euh, ñu nag. dellu ba tey di wax gars yi rek nañu sàlloo di ci bàyyi xel bu baax a baax. exactement tere yi ñu ñu ñu tere ko tere tere la tudd. tere tere. tere tere. defal nga def bàyyil leen. bàyyil nga bàyyi voilà. donc li ñuy def nag moom mooy après dañu le temps que ñu caler la vidéo de xam nga Adiouza. oui. ah man man si l'aime bien. non li ko li ko jigéen ñi toog TikTok. ah non mais ah, parce que parce que deuxième dame bu assumé la moo tax ma ne deuxième dame yi du ñu am opportunité wax je t'aime seen jëkkër ouvertement mais arrêteel dañ koy def. ah. lu tax Adiou Zade kon lu tax maam bës parce que deuxième dame dañu dañu dañu màmm dañu ko màmm xam ne daf leen waxal daal léegi nag deuxième dame yeeg troisième yeeg quatrième yi. fekk nañu wax ko ba pare. <laughs> on regarde la après. Et voilà c'est à l'instant Adiouza woyal na nag euh, deuxième daam yi troisième daam yi quatrième dame yi xam nga lu ma gën a neex ci way bi dafa assumer position mu ne mhm. médaille bi deuxième dame bi waaw lañ ko takkal médaille d'or médaille d'or waaw ah, médaille d'or waaw xam nga way la boo xamee nii dafa wax waxaale mën nga wax ci way te doo waxaale mhm. dafa wax ba pare waxaaleel ñi nga xamante ne dal leen di décoreel mhm. première dame yi kenn waxul ne elles sont vraiment machallah et mhm. moi ce que j'aime en terme d'écriture way mhm. mooy à un moment donné sa position da nga koy assumer xam Sénégal dañu faral di euh, di wax ni waykat da nga war a neutre non Mhm. il faut avoir une parce que li ngay dund ngay way voilà da ngay am position c'est-à-dire ku nekk ak sa histoire. Mhm, exactement comme voilà histoire bi nga xamante ne moom ngay défendre maintenant c'est le public qui juge. exactement donc moom nag mom dafa assumer position am. moo ma ne euh, j'adore cette chanson. Mhm. et ça vraiment fait un tabac. ndax bëri na ci ay way waykat yoo xamante ne fii ci dëkk bi. ñu nekk deuxième dame ñu takk leen ñaareel ñu koy nëbb nga ni góor ñi. waaw mën nañ ci mën nañ caa. mën nañ cacaara. cacaara. <laughs> kenn comprendre. mais loolu nag mooy Sénégal. mais des fois lu gën a bëri indi problème yi aussi. parce que tey bu dee yow da nga war a takk. am na ñoo xamante ne sax seen aaw leen di takkal. d'accord naa ci. mais même bu dee boo ko ko waxee wala kii ne wax ko ko rek. d'accord bu dee da ko koy wax ba pare def ko c'est-à-dire moo métti. d'accord ñu takkal la ñaareel ba pare wala ñu takkal la ñetteel wala ñu takkal la ñetteel kuñ ko def dina métti. dëgg la nga déggee mi. wala nga yëgee ko ci réseaux sociaux yi. kii euh, kii la kii bañ moo la koy won nu mu tuddati sax snap bi moo la koy won mooy mooy weer moo lay weer ñu ne madame diw nga naan noo warta nekk monsieur sax warta nekk sama bos. nga naan moom laam du moom. moom laam du moom. ndekete takk na ko. doo xoolal boobu dafa metti day metti ñaari yoon. exactement neexul kenn day eh, metti ñu bëggal ci ñu bëggal ci ñu bëggal ci deuxième dame yi troisième yi ak quatrième dame yi. parce que euh, bëgg nañu ñoom tamit ñu woote ah, ci 88 628 04 05 wala 88 628 20 20. ak numéro yi nga xamante ne moom la ñuy waaj def euh, sur le bas de votre écran. ñi nekk tam bitim réew jaspora bi bëri na ci ay deuxième dame parce que tamit bu leen fàttee euh, xale yi jigéen ñi ñu nekk deuxième Europe malgré que ay par exemple ñoom foofu monogamie la oui mais gars yi nga takk deuxième xale yi nga koy takk deuxième tu sais tu sais bu dee yow da nga nekk dul dem fee rek nekk à l'étranger waaw mais nekk mais nag am na aawa yoo xam ne dañ koy nangu dañuy nekk ak seen borom kër foofu mhm. mais ñaareel bi des fois day dem mhm. waaw moom aussi day ñëw Sénégal. exactement aussi dafa neex ça dépend rek loolu rek ci jàmm la. ku am aawa nag. waaw mu jig deuxième jig troisième jig quatrième. Mhm. tëjal buntu bi. mu tëj ci moom. ndax ku dugg ci lu mel nii. waaw wallaay wallaay boo takkee ñaareel loo dégg yaa ko teg sa ba presse lay liggéey <laughs> presse lay liggéey ku la yow sa jëkkër doful sax. xelam xalaatul sax naan day xal xalaat mënul. non mais mën na na ko am

22 88 628 65 65 numéro yu baax yaa ngi noonu. voilà 628 04 05 88 nag ngay jiital. 88 voilà par anticipation ñu daal di euh, fêter Saint-Valentin donc ku nekk ci ñun on rigole ku ci mhm. nekk ci ñun aussi euh, ñu démocratiser ko euh, souhaiter vraiment li nga bëgg wax sa jëkkër. Euh, ci Valentin parce que ci stress la ñu jugee confinement bi métti na couvre-feu métti na mm-hmm. c'est très dur parfois on a envie de de partager des messages forts mm-hmm. de dire des choses qui touchent au-delà même même bu fekkee célibataire nga mais mën nga waxal les femmes mariées bien sûr parce que célibataire mooy marié waaw ku ci nekk célibataire aussi da nga ñaan yàlla marié mm-hmm. tu vois donc tey ji kenn ñaanul yàlla également dund ci célibataire à vie exactement euh, il faut que tu partages ta vie avec quelqu'un que mu nekk ku góor ki que mu nekk ku jigéen ki mhm. donc li ci nekk kay mooy euh, ñaar ñiy daje du ñu yem jikko ku nekk day jéem a xam sa morom mhm. ku nekk day jéem a nekk ak sa morom c'est pas évident ah exactement c'est pas du tout facile ah d'être avec quelqu'un euh, toute une vie bokku leen jikko bokku leen dara mais ci mbëgg leen rek ngeen bokk muy mbëggeel bi ngeen bëggante ku nekk di mën a comprendre sa morom c'est juste ça. donc le góor ñi nag yàlla may leen lu mu mayul kenn. exactement ngeen mën a am ba diis. ah <laughs> sonn ma. ayca waa waa waa Espagne waa Italie ñu ngi leen di xaar waa euh, États-Unis ñoom ils sont moins cinq waa Canada. ah, ah euh, donc ñu ngi xaar euh, képp koo xamante ne tey yaa ngi ci diaspora bi ngeen woote ci 88 628 22 22 wala 88 628. cinq 65 cinq ñi nekk Cap Vert tamit ah mën nañu woote ngeen dugg aussi ku ci nekk wax mm. parce que moom laay wax toujours dëkk bu am na fu mu toll bu méttee message yooyu dafay baax ñu di ko dégg non message yooyu dafay baax day dundal xol xam nga tey booy booy ñëw di labat li ma gën a neex ci labat yombul de pour la petite histoire <laughs> labat yombul te kat kaay yàlla bo yàlla ngay labat. te labat wóoru la di nga am waaw. yombul woon. waaw non bu fekkee ne waroo am leer na la fi ngay dugg nii doo am waaw. mais léegi moom fu ngeen di dugg xam ngeen ne di am waaw parce que yéen a a koy liggéey. waaw ah, parce que jamono dafa changé waaw mais parce que dañuy njoos dañ lay tàpp daw. réer. ah dofatuñu de ñoo réew suñuy làmb joo gis léewtoo léewtoo lay tàmbalee. mais léewtoo dafa baax bu soo gis bu sifflé rek nga ñëw yenu dóor ci suuf. mais léewtoo tamit dafa nag moo tax ma ci Leewtoo ba léegi xale yu góor yi damay bëgg ñoom seen bopp fa la ñuy xamee ndax li ñuy am baax na wala baaxul. Hmm. waaw ci Leewtoo bi xale bu jigéen bi parfois di nga nga xam te ni fii doo fi am waaw. du neex maanaam tey fii daal du baax waaw du neex. foofu da ngay takk xarit. waaw day nekk sa xarit une bonne amie daal. mais tu sais que man li ma gis tendance bi ma gis mooy des fois du du neex mais da ngay jékki-jékki rek ku jigéen ki mel ni yàlla dafa wëlbati xelam. des fois ça peut être l'argent des vrai. fois être mhm. euh, leneen ak leneen ak leneen qui les pousse à truc ci ñi ma ko sañ wax quoi exactement parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons encore une fois mhm. euh, ku nekk tey jii am na loo xamante ni euh, mi ngi yàgg nga ko wax mi ngi nelaw ci yow mi ngi nelaw ci parce que dañu confiné <laughs> exactement dañu confiné ati ñu bëggal ci Mariam Samb ah donc on a profite déjà ñaatam mm. pour may leen benn vidéo boo xam ne ni xam nga hello Youssou da ko way mm. damay bëgg parfois ci way ni ñi di bàyyi xel les message forts. exactement parce que dafa wax ñaari génération. Mhm. ci biir way bi. Mhm. da nga gis ne way bi amul amul Youssou da ko bind mais amul transition. Mhm. dafa wayal ki nga xamante ne aujourd'hui day labat. mooy le jeune ba bëgg jabar. waaw biir tamit même message bi tu retrouves l'homme marié. ci ñaari couplets. di nga ci dégg célibataire bi labat. position nga dégg aussi. ci euh, homme marié bi wala euh, femme mariée bi. moom it mu wax message am. donc mu nekk euh, technique ku bind yoo xam ni. Mm. damay bëgg waykat yi léegi. souvent ñu ci bàyyi xel xam ne bind du rek wax benn phrase mën nga wax phrase bu am double ñaari signification. ñaari signification. voilà la donc, personne qui écoute pour la personne qui suit mais également ak ñaari génération. ku nekk ak ni nga koy comprendre. exactement jeune ki ci des nekk mag mais c'est dans tout l'album ah. exactement c'est oui. dans tout l'album de History. Mhm. History boo ko xoolee dafa jël démb ak tey boole leen. exactement te loolu nag dama lay rejoindre parce que ça se retrouve lépp lu ci gën a bëri c'est élaw.

dem du àtte xeexam. a ah, ñun tamit ay temps jamono ji yaa ngi wuti ay ay ay ay rose. ndeysaan ngay wuti ay carte yaa ngi wuti lu ne. mais commencé ngaa dajale lii temps booy. temps booy dafa neex. temps booy toj naa école. wàccal jël sa odo rek teg ko. waaw parce que ngeen ni ngeen ni euh, marché Grand Thiès a ngi noonu. midi bu jotee boo jëndulee carte dootoo amati carte doo am day jeex ba pare ñooñu dañu ci bëgg a rey nag waa léegi xale yi léegi ndax ñoom dinañ def yooyu maa ngi doog a xam ne carte yooyu waaw boo duggee ci biir bi da gis lépp c'est-à-dire sama waay da koy génne rek moom. taf ko taf ko c'est-à-dire taf lay def. bind bind ci lu ñagas. dinu ko jaay. yenn yenn xale yi parfois dañuy bind message yoo xamante ne mag du ko liir. du ko liir. ndax terme la nga dul xam. Pedre Ndiaye mi ngi ñuy seetaan. awa baa nga tëdd ca wetam nee ñun li ñuy wax yëpp intéressé wu ko moom li ko intéressé mooy aawam boobu tëdd nee takkaatul keneen yaa ko wax en direct Sénégal ak lay dégg ah, ah, moom loolu mooy message d'amour xaar du xam nga Pedre Ndiaye moom ah Pedre waaw Pedre moom loolu mooy message d'amour waaw mooy message d'amour am kon baax na voilà léegi nag la na nga fexe ba <laughs> naan ma ñaar <laughs> arrêté léegi nag kii di Nasta Nasta Best euh, moom it mi ngi ci Marietou Ba ñu koy nuyu Oumou Kalsoum Touré ñu koy nuyu Yacine Diop ah Vieux Seck na ñaar ñaari yoon Ba ñoom ñëpp ñu ngi ci Lille Khadija Ndiaye ah, moom it ñu koy nuyu mi ngi ci ah, Facebook bi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi bind nee na au oh, papa ah, yu papa yu alors su ko yàlla fayee. ni muy bégalee xol yi. waaye Ndour Waly Mbergane yàlla na sa yàlla jàmm yàgg. waay waaw amin waay amin waay amin te lépp nag ci mbëggeel la parce que mbëggeel bu ñu xool rek ni góor ak jigéen la hmm. ak ñey sëy xarit mbëggeel ci xarit mbëggeel ci yaay hmm. mbëggeel ci yaay ak doom mbëggeel ci hmm. papa ak yaay ak doom waaw tout ça c'est important am na ñoo xamante ne tey même bu ñu amul koo xam ne dañ koy yóbbul kaddu sax dañuy jënd cadeau yóbbul ko seen yaay dëgg la waaye nag kaay déclaration gi la ñuy laaj nee na nanu waa bu for yombee. waaw sëgg jafe lool sëgg jafe lool. moo tax boo amee jabar ju baax téyel. xam nga lu may bu ma lay déglu. waaw. day mel comme si yow am na ay temps jafe woon na. gos <laughs> yoxuma la jafe rek. jafe woon na la pour nga génne moof. la illa illa man dama bokkoon ci góor ñi nga xam ni. waaw. pour mu wax mooy maanaam foog problème am <laughs> mooy foog mu xuloo toj mooy vraiment ma xam ne maa ngi koy waaj a ñàkk ma xam ne je bi rek fi des <laughs> ma yàlla la ko rek te donc. dama te dama la koy dóor rek dem tëdd nelaw. tey ma la ko jox te daw je t'aime la ko la te je bi kat de am na fulla ji dafa am am na ci kaay du du ma man rek de. non du yow kese. bi dama la ko doon sëlëx rek la xoolal waaw baal ma dem toog waaw waaw yooyu. mais léegi je bi léegi yow balaa nga ma koy laaj. waaw dama la ciy tàngal ci góor ñi nga xam ne dañuy ñëw ci buntu kër bi ndaw si génn rek ñu daw. ba may gone. waaw ba gone. waaw waaw waaw ba may gone ñun xam ñun on était dañu amoon dañu amoon yar. xale bu jigéen boo ko so boo ko bëggoon boo ko boo leen doon ànd di jàngi ci yoon bi. kaa seen mu lay seen. dëgg la waaw doo ko ñemee récréation rek a leen boole. Ah, ah, moo leen di boole takat kaay juróom yan la jox pour nga pour nga jëndi sa récréation. ñeenti dërëm yi ndaw si nga koy may ndax buy waaji ñëw di jënd màdd. wala toll wala uul yaa ngi ko yooyu. yaa ngi fàttaliku bañ a jënd. ngata koko bii xaw naa cee. offre koko offre moom ngata koko la bëggoon. xale bi xam naa ne bu ñu seetee ba seet bu jabetul nii âge bii nii te bu jabetee man quatre vingt pour cent yi maa ko tuwe ngata koko rek laa ko doon jëndal <laughs> bëri ci morom. mais léegi yaa envoyé message waxuñu loolu. Ah. da ngeen di dugg wax bu ma yàqal sama ñaareel bu ma yàqal sama aawo man bu ñuy wax lii góor ñi ñemee ñi laay wax. <laughs> waaw ñi nga xamante ni dañoo am fit ñi nga xamante ni actuellement parce que nag. Ah. am nga pandémie bi. dafa indi leneen. waaw leneen li mu indi mooy ñi daan ñi daan ñi daan dem dematuñu mhm. dëgg la actuellement heure bii waaw daan na fekk léegi ñëppay toog ñu nekk ci position boo xam dinañ mën a wax ah, nii nii nii nii <laughs> ak xam fooy wax Seck yaa baax position bi baa xam nga ni soo amee lu baax boo ko sàgganee mer la ñuy tëddee boo ko ñàkkee di nga toog sa biir néeg ci biir mbooloo nag di nga di nga comme li ñuy wax di nga di nga def le fier ah oui non mais tu sais fekk ne xale boobu rek nga bëgg nit bàyyi na jabaram wala bàyyi na coroom ci biir mbooloo moox lu rëy jaar fierté fëgg dënam no ci sais j'ai plus j'en ai marre soxlawuma ko xam lii di yaawi bu duggee biir këram armoire ndaw si léegi xam nga yëpp nee na du xet yóbbu yëpp bopp ba lay dugal ci biir bi di xenti xeetu parfum bi <laughs> te bàyyi na ba pare te bana moo tax ma naan gars yi <laughs> alalu Euh, entre euh, kii warul warul am loolu entre couple warul am rus waaw ful la amu ci. ful la ci daal waaw ful man daal ji laa ci mën waaw waaw daal ñàkk jom. amul fula. man daal bëgg naa ku maa tey daal. baal ma daal. maa tey. Ah, maa tey. <laughs> je maa tey <laughs> ale lu ko sàggan moom moo jeen daf ko bind ma dugal ko labo yàgg na mais dafa am nu mu bindee way wi ma xamante ne ñi ñi xale yaa ngi koy déglu mais mënuñu ko dégg mm. danañu ko déglu à la surface mooy maanaam yi muy dénoncé ci kaw nit ñi di ko dégg mm-hmm. mais way bi dafa am sous-entendu moom moo jeen ak maa la dégg moom moo jeen dafa bind bind waay bi ma xamante ne mag deey na ko waaye tamit yàgg naa déglu mag ñi. dëgg la waaw parce que dafa bi muy bi muy démarré way wi. waaw dafa wax d'une manière général dafa ubbi dafa ubbi. mu doon saafara mbooloo ñëpp am ci wàll. lu tax maa déggee foofu. ah yooyu sekk la takk. maanaam sekk nga léegi. waaw léegi moom jalis na saa yi fini boo déggul dootoo déggati ba yow da ngaa juddu dégg ñaatam fii Sénégal kaay de. ku ci wéet ku ne xam nga de. waaw waaw xam nga de waaye ma bañ a réer. Mhm. donc moom li mu def. ci mhm. ci bind bi. dafa ñëw rek ubbi. d'une manière générale ubbi ñëpp moom way wi. waaw. alalu ku sàggan signé euh, Momo Dieng nekk way boo xamante ne actuellement xale yi dañu ko jël way wi dafa neex. dëgg la waaye kenn du Ibou Ndour. Mm. waaw man bëgg naa xale lu mu mën a way mën a way mën a way waaye bëgg naa nag ki koy tëggal musique xam way. dëgg la ndax mën ngaa neex baat. Mm-hmm. mais bu dee kii defar way wi déggul. Mm-hmm. doo ci mën a way. dëgg la dañu ko may ñaar ci biir way wi. dañ ko may intro DJ moom Ibou xam ne li may wax. intro bi waaw la ko may. may ko une minute boo xamante ne dafay xabtalu. Mhm. mu dem voix nu yaram bi day waaw mu wàcc ambiance dëgg la. saa waay génne baat foofu voix la wane. Mhm. te dafa démarrer message fort wane baat. Mhm. ma xam te ne lii ñëw noo du lu ndaw. noo du lu ndaw Ibou chef d'œuvre la li way nii. yàgg nañ ko félicité. ci liggéey boo xamante ni def na ko ci euh, voix yi nga xamante ni nit ñi dañ leen a bëgg loolu macha allah mais comme ni nga ko waxee wayu rek du du du du du du dama ni il ñu liggéey ko. waaw dama ni. Mhm. Momo Dieng dafa wax ñaar. dellu si waat ci. waaw dafa wax ak dafa wax ak jaam ñi. Mhm. waaye wax benn jëmm. waaw wax ci sous-entendu bi mooy. waaw ki nekk ci sëy te tasul. Mhm. message bu muy dénk la. ok position bi. c'est-à-dire ki nekk ci sëy te tasul te tasul mu metti te tasul. te tasul te tasul. waaw kay. donc am na chance bu tasee daje ku gën ci li mu nekkoon. exactement. mooy benn message bi deuxième bi. bi mooy. waaw xamoo ndax ku góoree ku góor message bi ku góor a koy wax wala ku jigéen. ku jigéen kii xamoo moo tax seen ndax foofu bu utiliser woon jeu day daanu. bu utiliser woon te bi lancement bi gis nga musique bi dañ koo wàccee. ko baaral. pour ñu mën a dégg li muy wax. exactement ndax nag mooy meeb bi moo li lay dugal ci biir waay wi. d'accord mu añu ah, mu ñëw andi message yu fort. curiosité fan la parce que li mu wax la foog nga déglu. suite bi waaw dafa junj. voilà ca man daal Ndiaga yow yéex ngeen def lii dama ni mais pour ñu daaneel ci. waaw way ba tey. waaw Momo Dieng na déglu ndax ak ay mbokkam woo. ndax li ma koy waxal ni xëj na bu demee ci réew tubaab yi. Mhm. lañ ko koy mën a faram fàcceel. te pourtant am na ñu koy dégg ñu ngi fi. te nañ koo wax nag. fi mu waxee ndax dafa ne bu utiliser wul je. waaw utiliser wul me. utiliser wul moi. mooy ñetti ñetti waykat yoo xam mooy ñetti termes yoo xamante ne waykat buy soog a tàmbali wala ku amul 25 ans expérience doo ko utiliser. sañuloo ko boo ci waye daanu. ku amul 25 ans expérience expérience way. waaw su utiliser su utiliser ma daanu su utiliser moi daanu xam nga lu tax. lu tax narcissique mooy dugg. ok day fëgg dënam te defagu fi dara. defagu fi dara te bu boobaa da ngay teel a toog. ok moo tax way wi tëddee njaaxaandaay mu sàmm ko xamoo ndax gaaw gaaw te ku naagu daagu. te boo daagoo ñu raw la ñu raw la ma daal bëgg naa li ñaatam xam nga fan laay ñëwee. waaw mooy bi muy tëgg. waaw xale lu ko sàggan bi mu koy wax ba musique bi di yokku mbalax ma di dal. waaw boobu ko jigéen ki gañe na. parce que foofu nag. xam nga parti am na. ndax da ñaata mba ah sama xol sedd na waay yàlla jàmm yàgg Sénégal waay 88 628 22 22 waay 88 628 65 65 dafa feelu uh-huh. ndaw si mm-hmm. ndax dafa wax benn moment boo ko toppee ci wax bi da nga naan góor la mm-hmm. déedéet foofu dafa neutre xam nga tax mu àndi neutre neutralité boobu mm-hmm. noonu parce que tëddee njaaxanaay boobu moo koy mën a permettre mu àggali bind bi ba pare nit da dul naa ko ci lu mu mën di doon exactement donc kii kuy seele tasul. waaye ku am jafe-jafe ci sëyam la. ku am problème xalaat ni bu demee. waaw kay mooy maanaam dafa pro ah cëm ñaatam dañu war a bàyyi. <laughs> dañoo bàyyi xale yi. <laughs> man lii rek musique musique daal man lii rek sedd na. moo tax Sénégal yi di ngeen bég lu ñu way lu ne dana ko dana leen ko tojal dana leen ko tojal ba mu neex et puis euh, ça fait partie également euh, idée yi ñu am bu ñuy ñëw ci émission bi exactement partager ak yéen suñu expérience partager ak yéen suñu vécu mais également tojal leen yaxu morceau yi parce que ñun buñ koy déglu duñ ko ñëw rek fecc ko moo tantôt nit ñi dañ may gis ci télé bi bu ñuy def di ñu génne ci YouTube beeg yooyu gars yi di ma gis ma concentré wu boobu maa ngi ci biir way xamuñu ko boobu maa ngi ci biir way te ñaari woon way faram fàcce suñuy temps tàmmaguñu woon ay youtube ñu lay génnee ay affaire yooyu des fois dañ may gis ma réer déedéet wallaay wallaay fekk loolu la <laughs> maa ngi ci biir donc c'est important. compliqué yow da ngay tiitloo mag di di leen gërëm yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi en direct du ñu suivre actuellement Fassar Babacar Wade moom itamit mi ngi ñuy suivre euh, kontaan bu baax si yow kontaan également bu baax ci ki nga xamante ni mooy Duma Mbodj Xarjata Mbeng Mati Ngom guddi na waaye ñu ngi seetaan Mamadou euh, Dia Diallo retrouvez-nous sur TFM sur nos pages Facebook Instagram et YouTube li ma lay dénk moo di ku la bëggul du la faale du la faale li ma lay moo tax ma ne moo ngi jee way tegal la si leneen waaw en nit day gëm boppam waaw c'est-à-dire mënuma mm-hmm. ak mënta nekk waaw te idée boobu nañ ko génne dëgg la sadir à dire xàcc bu ne wërsëgu la mag yi ñoo koy wax dëgg la am dëgg la waaw des nga nekk ci dara bàyyi dugg ci leneen loo xamante ne yow danga naan ay waay ndekete lii am na mm-hmm. xam lu tax moo ngi jee waay waay wi waaw xale yi bu amee problème amee ci biir sëy mhm. pour ñoom problème égale séparation mais non li nga ci xamul sax mooy am na jigéen ñoo xamante ne suñu amee problème ci seen biir sëy ak ñama ko seen wax euh, dañuy dem ba feebar ci ba am goiat dëgg la moo tax mu ne leen nag parce que pour ñoom seen àdduna foofu la yem mhm. te pourtant mën nga cee génn parce que ànd nag ak tàqalikoo ñoo ay ànd dëgg la te mbëggeel boo du souffrir du mbëggeel du mbëggeel xale yi dama leen kax bés bu ne ñuy jooy man leen yaag bëgg nga mbëggeel ak souffrance ñoo ànd ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi bëgg dafa métti mhm. xam nga fan la neexee ñu bëgg la boo bëggee ku la bëgg mbëggee gi day soppaliku waaye boo bëggul ku la bëggul ku la bëggul day metti day metti waaye koo bëgg boo bëggee ku la bëgg mhm. soo wéetee di jooy xam lu tax. Mhm. bañ ko bokk. fil gu tar la nag boo xamante ne. waaw da ngay jàpp ma jàpp. waaw soo bàyyee dina metti soo bàyyee mu metti man daal bëgg daal loolu daal mu mujjee yànn sa jàmm yàgg. xale bi la way na lu mooy ca rek def ko nii. waaw boo demee ba nga xamante ne nag leer la ne lii moo fi sës. parce que lu yàlla bind rek. Mm. am na lum ca nam. exactement. voilà moo tax problème ne veut pas dire séparation. encore tous les problèmes ont une solution il y a que les qui de solution. ba pare nag respect ah. jigéen aussi loolu da nga ko fàtte ci biir woy bi. waaw mooy am na ñoo xamante ne dañuy ànd ak jigéen. Hmm. am na ñoo xamante ne dañuy ànd ak góor mais hmm. ni ñu mel dëgg xamuñu ko. Hmm. xamuñu nit ki. d'accord il faut ñu bàyyi. doog mën a gis qualité yi nekkoon ci kooku. xam nga kooku naka laa koy wooyee. waaw baadoo la xam nga kan lay andi. waaw Aïda Samb. émission bi dañ ko tey dañuy gaañ gaañ <laughs> baadoo la la Aïda Samb lay àndi yi macha allah octave. Mm-hmm. octave. Mm-hmm. te loolu bokk na bëgg naa xale buy way. Mm-hmm. buy tàmbali. muy di laalay octave yu bari xamulu tax waaw daf koy préparer pour bu ba am 60 ans. mu mën a garder intact sa voix ne changera pas. exactement donc elle sait euh, et loolu macha allah. Euh, c'est très bien parce que souvent gars yi dañu naan dañuy jaawale euh, yuuxu. ak chanter en octave. xam nga liggéey boo gis euh, euh, expérience daf ci baax mhm. mais également jàng xam li nga xamante ni moom mooy baax ci yow ba tey jii ngay mën a garder sa personnalité mën a garder sa talent daf ci mhm. am solo mhm. donc loolu Aïda je pense que daf ko xam mais am na loo xamante ni yàlla moo ko def également ci moom mooy mooy maanaam euh, fi mu soqeekoo ak li mu donn mais du mu paree ci loolu également elle a pris le temps de de travailler sa voix. exactement dafa liggéey baatam. parce que ni nga koy xamee mooy. am na ku ne ci ligne bi de. am na ko de ci ligne bi. ah waaw ñu ñu remercier bu baax a baax Mame Faye depuis Rufisque nee na mi ngi ñuy suivre nee na eh, eh, elle adore suñu duo donc merci beaucoup salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si mbaa jàmm nga am. jàmm rek ñuy jégalu bu baax nag depuis tout à l'heure ndekete serveur bi doxul woon donc ñu ngi koy doog a rétablir euh, soxna si noo tudd. man aussi maa ngi bëri Rufisque daa kontaan nañ ci waa Rufisque daal nan la tur bi. kontaan naa ci. nan nga tudd. maanaam. Euh, da ngay garder tur bi. Mhm. waa léegi ci Saint-Valentin bi yow boo amoon loo xamante ne da koy dénk ki nga bëgg. Mhm. lan lay doon. parce que suivre nañ fi woy yu bëri loo xamante ne ku nekk ak la muy wax ca biir woy ba ay décembre ci baadoola la ñëw. Euh, Momo Dieng ñëw si ñëw ci. Euh, alalu ku sàggan alalu ku loolu yëpp am na fi. donc yow sa message mooy lan. Euh, sama message déjà nelaw ma ba heure bi mhm. c'est parce que sama Valentin oh. Oh, moom moom nga koy nga koy nga koy wéttali. voilà mais xam nga xam nga li nga wax lan moo ma ci gën a neex. Ah. mooy il est là il maa ngi ci wetam. am na ñoo xamante ni seen boroom kër buy bu bu feebaree duñu duñu duñu est-ce que xam nga loolu ex. c'est vrai. voilà parce que léew ni nga ko jege nii yaa ngi au petit soin c'est-à-dire lu mu soxla yaa nga ca. Mm-hmm. ex ma bàyyi tey tey lan nga koy wax tey lan nga bëgg a partager koy ñaanal sax la ñuy wax ñun. moom bi ñu nelaw ma man j'arrive pas à dormir. voilà. parce que moom daf ma féete fu nekk. dëgg la taxawu la fu nekk. fu nekk tax na il suffit que même bu boppam di métti damay feebar. Mhm. mais nag dama lay waxal benn affaire soxna si gis nga feebar moom day wér jàmm macha allah. day wér ak jàmm te seedeel nga ko seede bu am solo donc yow lenn rek moo la war en tant que la ma wax yaram a ngi daw lan ngay wax <laughs> tey jigéen ñi nga xam ni yàlla daf leen may jëkkër bu amoon santé baax ci ñoom xëy suba teel yàlla nattu ko man je me dis mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. a toog dëgg la. da ko war a taxawu. surtout bu dee surtout bu dee koo xamante ni dafa baax ci yow. oh là ñu ngi lay encouragé bu baax a baax. donc moom message am tey mooy jëkkëram da il est un peu souffrant. ngi tëdd ci wetam. nee kon nelawal. dinaa dinaa tane fi ñu toog ñu ngi ñaan képp koo xamante ne yaa ngi seetaan émission bi ñu lay tàllal suñu loxo di ñaan nga ñaanal ko ci eh, barki laa la laa yàlla yëkkati ko amin amin amin te yàlla day day jóg yàlla yëkkati ko day jóg parce que gémmeñ ku am bay ba gémmeñ ñi am barke mhm. kenn xamul kan la exactement ñëpp ñaan mhm. exactement et, et c'est telement fort parce que euh, message d'amour la Mhm. c'est ça l'amour. moom nee na amul message mais lii mu def nii rek message bu fort la. mooy bu méttee nga nekk fi. la bu neexee. Mhm. nga nekk fi. Mhm. ndax sëy neex rek taxu koo jóg. dëgg la ndax loo xamante ne xare la. jàppal na lu naqaree li ëpp lu neex li. waaye na la fekk nga am xolu muñ. dëgg la yàlla may la fa njaboot moom ñàkk la fo may njaboot. goreel. dëgg la gore gore surtout xale yu góor yi. gore dafa am solo juste pour ci ay décembre. waaw nañu gore. Mhm. parce que yéen yi baadoola la. dëgg la yow xale bu jigéen bi bi nga kaa labat. bu la neexoon teg condition tegul condition. Mhm. parmi tous les hommes yow la nangul muy deuxième chance. voilà troisième chance mooy nga am exclusivité ci moom. Mhm. bàyyil mu bàyyi defal mu def. dëgg la su matee du koy wax fenn su matul. du ko wax fenn may na la sutura ba pare nag di la dooleel waaw kooku tey boo demee ba yàlla may la tuuti mhm. goreel balaa ngaa defal kenn ku ci mënti nekk mhm. defal ko moom ba pare ba mu santi maanaam yokkute ci àddunaam parce que loolu mooy permettre yàlla barkeel sëy bi te xale yu góor yi ku ci nekk yaa ngi xëy suba di wuti de suñu classe gi sama classe gi nga koy wut ah waaw góore waay. waaw li waaye yow ku lay wax noonu. google am na am na am na ku ne ci ligne bi jëlal. <laughs> yow google lay wax di. allo tey am na ku nekk ci ligne bi euh, euh, moom sànq ba léegi moom fi koy waxee am na ku nekk ci ligne bi da ciy tëdd ba du ko dégg. <laughs> salaamaaleykum. soxna si noo soxna si noo def. maa yaa ngi ci jàmm ma très chère. maa ngi ak sa ex ma bàyyi la ak ex. <laughs> waaw soxna si naka nga tudd. maa ngi tudd Michou. yaa ngi tudd. Michou. alors Michou c'est vrai que euh, am nga jëkkër. fan lay wootee sax moom. moo ngi waaw bëgg naa. Ah, ah waa léegi léegi ah exactement deux heures moins le quart lan nga bëgg a wax tey sa jëkkër xale yi jigéen ñi di ko dégg boo dee première baax na boo dee deuxième baaxanti na. boo dee troisième daw raw. ban nga ci boo fàq. ban nga ci doon. première. Ah, waaw kay. <laughs> yow général nga tey yow général bi looy wax tey. ce message Saint-Valentin ñu tàmbali ko tey. général sa loxo ca kaw ñëpp ngi lay déglu. kenn dootul wax. ayca. ah waaw. su la ji. lan la la ji ba nga xamante ne soo ko xalaatee sedd mais am na loo xamante ne ex xamu ko mooy am na ñoo ne boo leen nee wax leen ci ki ngeen bëgg du ñu wax ci moom. dana wax de. du ñu mën a commencer bay wax. waaw parce waa léegi mais am na fo am na lu la wan loo xamante ne tey saa ko xalaatee sedd loolu lan la. daf maa jëlee kaa jëlee fu sori. ndeysaan. koo xamante ne ngëm amul mhm. Mhm. xalaatoon ngeen moom Euh, mmh. mooy sa force. Mm-hmm. mu ñëw dooleem. macha allah. mu wan la ne la li jot mm-hmm. mm-hmm. euh, man dama lay laaj juste benn laaj rek en tant euh, en tant que homme. mooy euh, lan mooy sa secret ci sa biir sëy ba mu doon ndëgër laay loo xamante ne tey leer na la ne problème bu amee naqari tempête lu mënti am di nga toog t'arrives à maîtriser à maîtriser waaw. bëggee boo ko bëggee yërëm ko. tamit. man daal ma man sa ni ngay waxee nii sax da ngay dégager nii nii ngay waxee nii man sama xol dafa sedd daal. waa ji ba ngay dee waa ji waxul dee. waaj boo waxee bu ma la dóoree bul <laughs> wax. waaj doon koo xëj fi mu toll nii waxul de alaaji doo wax de. oui ma yow daal delloo ko ko bul xeeb dara. mu ngi muñ mu ngi fekk jooyul bul bàyyi. waa léegi yow. <laughs> léegi moom léegi moom alaaji moom. Mhm. ndax ay jeteemam ay jeteemam yaa ngi koy yëg ay ay yu yu foor la lay wax. maa la bëgg pire. ah façon bu ne. classe bu ne. nee na moo ko ah, dooleel daal gis ngeen Sénégal baax na nag Macky dëkk bi teg nañu ko waaye baax na tamit ku ne wax li nekk sa xol de. ah na ñeen gëm li nekk suñu xol yi di ko wax. am na ñu ne ci jàmm de. benn woykat bu ne euh, li may gis ci sama xol yéene naa ko fu ne. dëgg la déggal li. Euh, nit ku nekk nag soo wéetee ci sa bopp xam nga foo bëgg. Mhm. ah cëm. dëgg la wax dëgg de. Euh, yàlla lay ku ci nekk daal yàlla lay yàlla boole ki nga bëgg. amin allahumma amin kii da ci waay li ngay wax a neex waay. waaw. Mm-hmm. Euh, léegi rek yaa doon waxtaan ak moom ci jamono bi nu mu mel. Mm-hmm. macha allah par rapport ak infidélité par rapport ak lii nii goree diggi. dëgg la maa ngi ñaan daal daal nañ gën a goree. Eh, xoolal kontaan xoolal mail dédicace. dama kontaan. xoolal eh, mail dédicace. yow sa message ci Saint-Valentin mail ñëpp dañ ko war a dégg parce que lépp da ko def ci mbëggeel te tey jii euh, actuellement euh, conseil yi ngay joxe ni nit dañ ko war a dégg mhm. parce que ku nekk boo wéetee dégg nga li mu wax da ngay mhm. war di fësal sa mbëggeel di ko ko wax mu koy dégg ba pare par des actes des waaw doo xajal kenn nag ci xajal kenn mhm, waaw ko rek ci bopp rek gorek sa xam nga xam nga ma dolli la man jigéen daal bëgg naa ci jigéen bu am confiance ci boppam eh, boppam la yàlla lii yow sa alaaji bi ngay bëgg a dee. yow bàyyi sama alaaji man ba sama alaaji bàyyi bàyyi jàmbur. boppam mooy man sama taaw mooy sama alaaji ma nga dee toog sa kër ga di ma xaar daam. daa gëmewul jëkkëram. mooy sama alaaji ma nga toog. oui si je pense Seydou bi la woon. la dëgg la. waaw waaw mos nañ ko donc euh, donc euh, confiance en soi moom gëm naa ne moom mat na sax. gis nga confiance en soi la euh, ma gis nga confiance en soi soo ko amee. Mhm. c'est-à-dire mhm. la xoqatal ba nga dëgg la parce que tamit exactement parce que surtout période bi ñu toll nii nga xam ne li ngeen di gën a li ngeen di gise day gën a bëri mm-hmm. am na ñoo xamante ne ay samba booy lañ suba gu ñu xëyee ñi ngi xool lu ñu duggee ci biir mais yow soo wóolee sa bopp fees dell sa place toog même boo tuutee ba mel ne ñaatam mm-hmm. c'est-à-dire dara du la dara du la <laughs> yëngal eh, eh, eh, ñaatal ba daal <laughs> yow daal fi mu daal ce soir yaa ngi koy propagé man daal maa la ci dolli loolu te sa allah ji nekk kontaan naa ci moom parce que jigéen dañ koy yiir dañ koy teral te jigéen dañ koy dooleel moo tax muy ñeme macha allah voilà na leen yàlla gën a jubale monsieur Ndiaye daal yàlla ko ko bàyyi eh! <laughs> yëngal naa ko yaa nopp sa jabar mais yaa tay waay <laughs> <laughs> Ndiaye bu ma xamoon say mbir tàggal la ko kontaan naa ci yow. Eh, atiwul monsieur Ndiaye yaa tey man daal lii man daal lii neex na ma. xam nga complicité ah waay lii neex na waay. sëy sëy <laughs> complicité la yàlla bu leen cat dugg yàlla bu leen cat dugg. voilà ku ne voilà ku ne nag may mos a woote ci seen ba. muy ma gis nga ni mu neexee. di di participer ci benn émission. surtout surtout ci heure parce que surtout nag ci heure bu baax bi nga ko defee nii. dëgg la de. très bonne <laughs> soirée neex na ba pare. merci beaucoup. kontaan naa merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup ah non mais excité il m'a demandé de euh, de faire benn dédicace. non may naa la dédicace. la neex le son que je veux. wax ah. mën naa choisir le son que je veux. choisiral. choisiral ku loola neex. Mourouk Lem laa bëgg. la. Mourouk Lem. ak ah, kooku ak lu bëri kii la ah, kii ah, nu mu tudd si de kii di lës diwaan ji lës diwaan ji. yow eh, defal ma lës diwaan ji ji lem. oui ma mën naa laa mën noo koy fekkee. Eh, maa ngi jóg léegi wàcc déy la ko bul coupé bul coupé <laughs> merci beaucoup très bonne, très bonne, très soirée. Allez, revoir Madame Ndiaye. Bien des choses. Merci beaucoup Madame Ndiaye. Elle, elle, elle Mais c'est ça la boobu dund leen ko ko diwaan lës diwaan ji. lës diwaan ji. voilà. waaye nag kenn du Abdou Guité Seck fi mu génn. yii kenn du Abdou Guité. Abdou Guité Seck dafa mën wayu xol. wayu bëggeel. dëgg la ah am na ku fi ne. Amadou Amadou Sow mi ngi yaraax actuellement. mi ngi ñuy suivre lu mu wax. Euh, ñoom aussi ñu ngi ñuy suivre euh, ñoom ñëpp rek si euh, li nga xamante ni mooy suñu ay sa Instagram Facebook et YouTube donc di leen fàttali yéen a ngi en direct ci télévision Futur Média mu nekk concept bu bees bu ñu nga xamante ni dañ leen ko defal yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan en ce mois bi nga xamante ni dañ ko jagleel. waaw bëggee mbëggeel waaw. xoolal xoolal waxtaan ak yéen xoolal kii kii nee na euh, Famosiane euh, Christiane. est-ce que mën nga bàyyi di wéeru ndax ngay dégg ñu lay wax ga dëgg. waaw euh, Famosiane. nee na témoignage confiance de maître Tofa africain très puissant. Mhm. ñoom daal joxe na ba ñu joxe numéro téléphone li mu bind for na mbay. Ah, waaye daal ku dem na. message d'amour la man yi xam nga lu may fàttali. xam nga lu may ci télé. lu may fàttali. Ah. nuit paisible ba ma doon def. RFM ba 2 heures du matin. dëgg mais nga xam ne les dimanches. waaw ah gars yi dañ doon confier wu en direct. da ngay gis ku lay liiral man poème laa doon ex proposé. mais dëgg la. ñaatam xale yi dañ bëgg exprimer wu nag man dama bëgg. cité bu baax a baax euh, c'est des meilleurs moments de télévision euh, vous euh, vous constituez un explosif duo. d'animateurs félicitations vous êtes sur le la très bonne voie. et surtout Merci. vous maîtrisez les euh, rudiments de la musique. Euh, notre frère euh, inspecteur euh, monsieur Bey merci beaucoup man damay jàng xaw ma dara ci mbëggeel mais tu es coquette merci beaucoup <laughs> à toi bind loolu xam naa la de kontaan kontaan nañ bu baax Mame Faye la tudd Mame Faye Rufisque waaw mi ngi Rufisque on est très content nee na il se rappelle ou elle parce que Mame la wax je pense que jigéen na am na kenn am na ku ne ci ligne bi nekk allo salaamaaleykum allo allo bonsoir allo allo ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci télévision Futur Média fas yéene waxtaane mbëggeel ndax xam ngeen ni le mois de février euh, c'est le mois de l'amour mu nekk weer boo xamante ni ñi bëggante dañ koy gën a fësal euh, ñi bëggante dañuy waxante lu baax joxante ay cadeau yu baax euh, ñu ñëw nag def concept bi ànd ci ak yéen ngeen mën a waxtaan ak ñi ngeen bëgg bu leen jegee ca la dàqe bu leen soree mi ngi leen di seetaan jeex na yow xam nga ko ñu mel ni rek ñu ni seetaan ci Facebook bi euh, kii nag euh, moom mooy Khady Fall nee na macha allah madame Khouma Arabie Saoudite bëgg TFM. macha allah bëgg na télé bu baax alors Dieng Ndiaye Kandji euh, nee na salut Exadex ñaatam am na ku ne ci ligne bi nee na franchement bonne continuation. merci salaamaaleykum allo. maaleykum salaam. soxna si mbaa jàmm nga am. ça va très bien. yii kii teel na maa neex kii teel na maa neex. Eh. elle a une voix voilà kii day toj télé bi kii teel na maa neex. madame. oui allo. c'est madame comment. waaw ah, góore waay. non damay damay sànni xeer ma jéem moo tax il faut ma leen tuubi. da ngay sànni xeer euh, ah? sànni xeer ci boppam. waaw moo tax damay leb tur. ma rang muy dal. yow kii xamee naa baat bi de diggante diggante Joal ak Fadiouth ca Unkuya. <laughs> Eh! waaw moom laay sànni xeer mi. barke yow laa ilaaha illallaah kaay tey laay liggéey. nga la xam nga ñun. waaw la saint bi kii du dem waaye. na de. allo anamu. non dem. yaa ngi ci li nga télévision bi ngay éviter di déglu di déglu ak sa téléphone. on est tout maa ngi maa la. yow yow rek ñuy dégg. yow yegg si rek man kay sànni xeer il faut muy lay neex. parce que non parce que ko doon léegi bi ñu seetaan. waaw dama ne ko léegi dégg mu wax ak texte. léegi dañu may wax ay mots d'amour. sëñ bi daal xam nga ne ma eh, ay ma fontoo alal lébu la ma. alam lébu ah lébu yi xamuñu mot d'amour. ok. jëkkër ji lay boole kii je l'aime bien yow eh yow man maa la bëgg. non man wax naa leen ko nee naa leen jikki góor ñi am na ñoo xamante ni mënuñu koo wax. non dama ko ko mais tax sax léegi bind ko en fait. forcé ko ko mu bind ko ko mu bind la lettre. non dina ko bind. Ah, wala message. non foog mu bind ko mais quand même bonne continuation. merci beaucoup. merci beaucoup merci ñu ngi leen di félicité et puis c'est bien ak moment ñu nekk di ci confinement bi. on a besoin de ça on est on a besoin de se parler merci beaucoup merci beaucoup et très bonne soirée à vous. mais bul fàtte lettre bi de na la ko bindal. non non dina ko bind dina ko bind. ba pare boo leen waxee ba si yàgg rek doo leen ko xeer. nee leen ko et monsieur X envoyé ma dem X moo d'abord. waaw léegi léegi ne ko bu mu xool internet bi de na bind moom li mu xalaat mu bind ko. dañu bàyyi internet bi

nee na lu baax ak lu xew joxal TFM. forever jërëjëf yow moom wax nga dëgg moom Souleymane Jules Sey nee na salut Ndiatham Mbaye Exadex c'est Souleymane Sey alors je en direct avec ma femme Thiam nee na. kooku nag moom mooy madame Niang Wakam cité avion nee na félicitation ah ñu ngi leen di bégee. nee na am naa lu ma métti trop awatin woote naa ba sonn mënu ma dugg seen téléphone bi am na problème. waa waaw ñu insister rek. ñu insister mais dafa mel ni mi ngi waaj a jeex euh, nee na seetu bi forever euh, protégeons nous euh, contre cette pandémie donc macha allah ñu ngi ci biir kër yi ñu ngi respecter également distance yi ñu ngi yore suñu ay gel alcoolique fu ñu toll tey raxas suñuy loxo ba mu set wecc comme ni ko kër docteur. waaw waxee diglee waaye du tere ba tey ñuy wax ci wàllu li ci biir xol yi nañu génne li ci xol yi. parce que Ouly Oumou Kalsoum Touré nee na je n'ai pas besoin de respirer parce que je respire son air nee na je n'ai pas besoin de rêver car il est dans qu'il est qu'il est mon seul rêve je n'ai pas besoin de parler parce que mes mots sont les siennes nee na je n'ai pas besoin de vivre parce que son amour c'est ma vie ay waay ay waay yow lii leneen luñ ci teg ñàggandu duñu mardi xale li mu wax de je respire son air. waa léegi pas besoin waa léegi waa nee na parce que parce que moom lay nee na soxla na parce que moom mooy airam. mooy sama air. koy doog moom. lii fort na mbay. Eh. nee na je n'ai pas besoin de respirer parce que c'est mon air. nee na je n'ai pas besoin de rêver car il est mon seul rêve. je n'ai pas besoin de parler parce que c'est mes mots. mais nag mais nag est-ce wax nga léegi bi ñu doog a commencer. bëgg naa ko jongee ñu ñu di leen ko wax. waaw. dañuy tàmm di leen ko wax parce que loolu dafay dundal mbëggeel. exactement en plus day indi plus de confiance. Abdou Guité Seck. voilà plus de confiance donc euh, may remercier waat bu baax a baax ki nga xamante ni moo ma defaral robe euh, chemise bu baax bi euh, sama waa ji classe mode by Jeba mu ngi nekk seen Assainies unité 19 donc en face HLM Grand Médine. Euh, waaw ku fa dem. ko fa fekk yoon ba taliba mi ngi noonu unité 19. donc mu nekk xale bu am jom mi ngi yëngu ci wàllu make-up di yëngu ci wàllu couture. Mhm. elle est au 77 439 12 11. 77 439 na Parcelles Assainies bi am na yeneen couleur yu fa nekk yoo xamante ni ma nga fa dafa gis kii bi rek daan ne ma acca. alors vieux naa ne kalel su ma juumal bu fekk yaa may dégg rek vieux Abdou Guité sekk bi ba soxla leen message am ndax Abdou Guité Seck dafay waykatu tem moom la ñuy tëjee Abdou Guité ñaata mais est ñu desee vieux mën nañoo dem naan jeex na mais dama lay waxal dara de albumu Abdou Guité Seck bii teenu lem la ku ci mandi dee li nekk ci biir ci ay message ci nekk ci tëgg mu neex ci biir album bii waaw avoir absolument xam nga ab Abdou Guité Seck dama bëgg mardi prochain ma ñëw def comme ni ma jaare yeneen yeneen yeneen chanteurs yi mhm. ma may leen ci sa façon d'écrire léegi pour wax leen ni leen les mardis dinañ décortiquer exactement toutes les chansons yi nga xamante ni gars yi dañ koy liggéey parce que nit nag bu liggéey ba pare mhm. dangay wax bant bu nekk fa mu ko teg ba kër gi taxaw mhm. suñu paree ci loolu tijji leen téléphone yi ñu waxtaan ci mbëggeel ku nekk dóoral xeer dóoral yat waaye moom nga bëgg exactement en tout cas euh, ça a été un plaisir euh, ñu nuyu nag képp ku nekkoon ci Facebook du ñu seetaan donc muy Gaynde Naar Soxna Gueye mhm. ah, Talib euh, Talibou Yaba Mamadou mhm. Kane Diagne ah, Adji Bass Thiam Fatim Lam donc muy Fama Lam kooku nag moom mooy koor kooku nag mooy koor damay bañ wax waa ji dama koy bañ a si wala ay Fama Lam ak bëgg jëkkëram <laughs> waa jëkkëram ko raw donc ñu ngi béggee képp koo xamante ne yaa ngi ñuy euh, seetaan ah, di ko may Clayton Hamilton moom mhm. xam na donc di ko béggee na ko sa soxnaa fi jaar donc Adji Bass Thiam ñu ngi koy ñu ngi koy béggee parce que émission bi jeex na di remercier vieux ah euh, di remercier toute l'équipe ah donc képp koo xamante ne jàpp nga ci de près ou de loin ah donc waa digital ñoom it ñu ngi leen di ñoom mag yi ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier donc ñaatam merci merci à toi Exidex c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi et puis di remercier les téléspectateurs les internautes également rendez-vous mardi ci télévision bi waa

Ndiaye euh, yow euh, bref tous les animateurs de la télévision ou bien du groupe Futur Média Sidat Thioune sama waa ji dof mën li muy def téye ko tey bëggal gars yi ci temps booy bref bët nañu mardi prochain ñun ñu koj leen ci yeewu leen duma. bonne soirée à vous.